mon cœur. seeri Coco Coco seeri laa bëgg. maa seeri Coco Coco seeri laa bëgg. maa waaye man fii laa waa koñ bi yëpp xam ne man naa lay doxal. waaye koñ may ni la seize wala baa a <laughs> tey ay séet wér naa. la kon kon lan ngay taxaw ci ay séet. man dimanche laa defoon après loolu boo fajoo koy da ngay waaye di gën a ràngati ko rek. man noonu nga ma suñu ma mel waaye danga toog mu ne nii laa la man damaa doon chaque jour ngay jeexal sama xol bi. naa la nag bébé man bëgg naa la waaye tamit bul jooy moom kër. man dinaa jooy. man noo mel rek bëgg naa ko. dinaa jooyaat sax. je t'aime I love you. moi aussi je t'aime I love you. ni nga jógee. oh my God baby. I love you baby. maa parfum bu eh, la. parfum néew moom rek laay laal. sa <laughs> papa a la. <laughs> xam nga lay bëgg ah xam nga li lay bëgg. ñu dugg ci ginnaaw fuleer ñu def bisu bisu. yow yaa ma jëm gasoil. en tant jigéen nga naa am nañ ruq bi def ay caxati kii ok bëgguma. waaye bëgg naa la kay xanaa xamu film yi boo koy seetaan ni tubaab yi di def ni bis bis. defuma yooyu. waaw lan moo tax defoo loolu. gis nga gasoil ba sa affaire yi nga may def ba soo ko bëggee da ma ñaasi ma seeyal la te yàlla wala yow nga seeyal ma dégg nga. waaw ñun bëggante nañ kay xanaa bu ñu génn dinañ def bisu bisu xam dama fi dama fi am quatre copains am bu dëkk fi am ko dëkk fi ñoom ñëpp dama leen di seeyal ah kon nan nga fi nekkee doxaan fii doxaan fii loolu nag moo tax man la nañ génnee séjour toog fii ñoom xam ne man maa lay doxaan ah! man nekk di farantu di am ay copain la sa baay la sa sa tante yaru la sa waa kon kenn la macha allah macha allah ku réew nga man lay ma lay doxaan di la dimbali rek nga nekk fii di kii di bari wax di fas la bu ma énervé loo dégg nga da xam dama laa bëgg rek moo tax nga may saaga. da nga maa bëgg ma rus naa sax pourtant ma tëdd ma laa bëgg de. ah bëgg nga. waaw kañ làqatu kii ci ngi dugal. dugal bàyyi ko fi nag yow da ngaa gis ko bàyyi ça va bien. waaw foo nekkee ci dëkk bi. dama seen waa kër lay wër. léegi. sa yaay nag moom lekk na dee. na dee. yow mi moom léegi nga di. yow ku la jëm ne tëkkale góor. bien sûr su ma ko jaralee nag. waaye léegi yow def fi ko nekk fii. xanaa benn. jiw lay laa takku la takkaanu la. mais gu njëkk sax joxuloo ko nga naan da ngay ñëw fii naan da nga koy dëkk dëkk fii. yow nana de quoi tu te mets. dimbalee suñu ko en tant que patron. dimbali dimbali suñu ko. wóorul li c'est pas sûr. bëggoon. dafa ne. mais doo ma jënd sa lii ngir yàlla. eh nelaw. gëmmal nga nelaw Ada. mais ni ma si bëccëg bii nii man ma ñëw fi pour nga tegal ma ataaya naan ndox bu sedd. Ah, ñu suñu waxtu heure yi dañuy nelaw su guddee dañuy sieste suñu kër su guddee naaj bi day génn te danga nelaw Ada tëjal. xale nga foo ma nelaw nii rek. di nga nelaw kay xale nga. yaa ngi baata waay. trop. mais yii nii de kañ nga ko changé sax sa lal bi affaire yooyu noonu sa almoire. ma koy changé kay. fii laa ko teg di jàkkaarloo waay bi. Zouza day ñëw di sàcc lekk yi di ko def bandi ak agresseur. loolu c'est normal. ah damaa ba dee. man maa jël ravitaillement chaque jour ma jël ravitaillement plus de un million chaque jour ah. yow lan moo ci sa yoon su ma fi nekkee ak su ma fi nekkul. yow nga kilifa de. ngeen ah. ne xaw ma bëgg góor la xaw ma bëggee góor. mais su ma neexee may ñu ma ko ma may ko sama bopp. waaw buñ la ko mayulee nii nga koy fajee. ba hmm. bu ñuy tëdd sax ci judd ñu ngi ah, muy neex. waaw wuy ma. Hmm. paa moo nag laa su dégg. Ah. rombal gisoo ma gisuma la. ndoo rek. laxatu fee non non non non non laxatu bu laxatu su ma fekkee fii nag. ñun defuñu lu bon dañuy laxatu. ah defuñu bon loolu dëgg la waaye kon kañ dem léegi suñu demee da nga ko xëy maa bëgg a tax dégg nga. waa kër eh, nga sama nopp amoon nga ne da nga da ngaa abandonné sa yaay ndax fii nag du auberge ngay tëdd guddi di tëdd bëccëg yoo koy leen a tax a jeex xoolal nga jeexee. Eh, toppal fële waa ay dóor yu métti la def ni nga naan ma taal ca kaw nga dem jël saa bi jël jàpp. d' accord demal waay ñanam nag. non toog sa kii waa doo yëg. sàcc bi yaa ngi ne sàcc. Eh. sàcc na. mu yow. de sàcc firi ko la. Eh. kii kan la. waaye tey sama xam nga may salaamaaleykum loo may nuyu loo fi def loo fi def. loo mu ne. kii dof bi doo koy nga naan ay copine. non copine Aliou mooy la. waaw jaarale kii kay yaa ko gën a dof nekk waaw bu ma jox loo waay dama waay eh bu ma la fi gisatee rek def na lu bon waay eh noppi yow moom sa bàyyi jàpp na la cam xool ak sa comportement bon ngay fàttali góor yéen ñëpp nekk faama woo ko mu génn. maa ngi koy faama. jarul nag nga ngeen di génnal jaar nañu. ñàkk ko amul kër. mais man fi mu baax a mais man bay sama yàlla laa koy wax. garaaw dafa def. eh eh bu yéen bu sommaay jaar nañu mu mu ko ngeen di. woo ma sa papa yow. papa. papa. li ngeen di bañ a dégg. non daf nga fi yow. c'est pas xam nga lu am solo sa taxawaal bu métti sa doxaan bu métti laa bëgg nga bàyyi ko yow tu n'es pas responsable ak kër gi xool kër gi fa. kii di fàttee kee fàttee yow xanaa doo kilifa boobu léegi nga ne sëmm ci biir néeg bi loo ko doon def ku dem sax da ngaa fatoon yow. waaw eh, déglu ma bul wax noppi doxaan bi ngay baax topp ci dëgg bi doxaan rek ku ne doxaan ko. ni dem si turee. waaye aw ma benn sikki ku ko def ku ko wax la bëgg yaa ko def dama koy wax. eh xam nga lu ma lay yëgal. Adja fayoo ko borom. alam na la ji nga tëdd di ci noos di ci donkaasi di loolu day dañ. waaye bu nga téye dinaa wax. eh xam nga luy jàmm xam xale yi dama leen di yóbbu na miiraas kër leen. du yóbbu nga mos. yow nga xam ne Adja li ko rey yëpp xam na. Eh. eh noppi yow da ngaa réew ba def sa papa bay bayal la gis nga li nga may wax mu naan may nangam nangam di taxawaaru di def lu ne waaye eh dem leen defar seen bagage maa ngi leen di xaar dem nii waaw man daw fii laa toog waaw daw ma fi laa toog resto resto. tuuti boo dee fay message bi daf am surprise bu may wax nan la jëlee su mu ne. déggoo. eh eh mbaa nangu nga rek. man nag ma woon dem de dañ kumpaa ma surprise ak kii nii. waaw. Ah, eh wàcc dafa rëy si eh. boppam waxal ak moom jigéen du rëy. moom moo jël téléphone jël taxaw mu wala. Mm. dama nga wuyu ko waaye yow doo ko def. yow daal nee nga yow racine daal loo bëgg daal te deewoo ca daal booba sax mbëggee la di des yow racine mii ba ko racine mii nga xam ne amal na benn njariñ yow yaa koy jox waaye moom joxu la te jàpp tuuti boo mii nga xam ne moo yor sa teraanga eh Aïcha amuñu nëb boo de yow sama doom nga ceeb baa ngi ne rës na ah? dëwlin nga moom waxaale wu ma ko nag ma yëg eh wàccal demal soo demee neexal defal sa feem yëpp su ma xamoon ne lii moom siy fekk du mën a sax taal ah. ak zone sama yaay leen daa taxi <laughs> <laughs> waaye dégg nga nii <laughs> ndox du bàyyi yoonam seen nopp ba ma cay toll lu gën a gàtt lii laa daan sol vulgaire yéen vulgaire leen man ba la la ma vulgaire ëpp na man sama yaram daal bu feeñu kontaan na eh. maa wax ni waaye yow yaay vulgaire bi yëpp nga toogaale bi man daaw man na ma affaire yoo la yoo nit day bandi mais yéen da ngeen a bandi salte nit day bandi surtout jëlal yi na yoon neex <laughs> jëlal yi bëgg naa ko ci